jéem a firi suratul fatiha amoon nañ ci ñaari dërs bi insha allahu taala mooy ñetti dërs ñetteelu dërs bi yal na yàlla tawfiqal ba nu leeral bu baax a baax saar wi te buñ fi jógee te buñ koy jàngati ci julli wala ci lu dul julli lu nu romb xam lu mu set man koo teewlu loolu la la la firi saar wi di jëriñ ci ay fas-fas ñu fas ko ci ay ndigal ñu jëfe ko lu ci ay tere ñu bàyyi ko yàlla na nu yàlla dimbali ci xam gi ak jëfe ji bu ko defee nag boo ubbee kaamil bi ubbi saaru fatiha di ko jàng li ngay jëkk a gis mooy bismillahi arrahmani arrahim nit ñi itam soo leen doon wër jullit ñi boo leen doon wër di leen laaj الفاتحة لا يجت جك ما يجن بس جيتي والله ما فاتحة بن لا يموت جك لما كنا بخ فاتحة بن لا يموت جك كل واحد بخ نكو هم نوا ها بسم الله الرحمن الرحيم كان بجنتي وحكاري لبندي ما يتجاوب التفاعل الانفعال tajaawub mooy déglu bu baax si wax li muy wax bu fekkee sax am na ci loo xamul man nga ko koo laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ni ko def ci xutbaam di ko laaj waaye bu ñuy xutba nag nga toog rek teew li ñuy wax déglu woo ko wala defoo ci sa xel mën naa am doo ci jëriñu yenn saa yi dinaa laajub laaj jubluuma ah. ci dara lu may demee seet ba xam ne ndax ndax ndax yéen a ngi xam naa ne yéen ñëpp am na aaya bu ngeen jàpp ne moom moo jiitu ci fatiha waaye kon su ma ko dee laaj damay seet ba xam ndax yéen ñu déglu su am na ndoo yéen ñëpp walla ñu ëpp ci yéen jaar ci aaya bi sama xel dal ci ne yéen a ngi may déglu bu baax kon li may wax mi am njëriñ waaye ñu ëpp ci ñi boo leen ban aaya moo jëkk ci fatiha dañ la naan bismillahi arrahmani arrahim am dég léegi loolu ndax wér na wala wérul borom xam-xam yi am nañ ci ak wuute am na ñaari mbir yoo xam ne juboo nañ ci borom xam-xam yi juboo nañ ci borom xam-xam yi juboo nañ ci ne boo demee ci saar wu ñu wax nam li bismillahi rahmaani rahim ma nga ca te foofa moom mook la mu àndal aaya la ñu foofa mooy fi suñ borom yàlla di wax innahu min sulaymana wa innahu bismillahi arrahmani arrahim loolu foofu moom borom xam-xam yëpp d'accord nañ ne foofu bisimilah rahmaani rahim aayale fi wala luy motti li laaya li borom xam-xam yi d'accord mooy am na saar wu ñuy wax tawba mu tàmbalee baraatu min allahi wa rasulihi borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci ne woowa saar bisimilah rahmaani rahim bokku kenn du fa jàng sax boo doon jàng alquran ba ak ci suutu tawba bopp saar woo doo ko wax bisimillahi rahmaani rahim yooyu ñaar d'accord nañ waaye am na ñetti yëf ñu wuute benn bi mooy ndax fatiha bisimillahi rahmaani rahim moo aaya la bu ci bokk wala bokku ñii nee nañu bisimillahi rahmaani rahim mooy aaya bi njëkk ci fatiha ko ñu bari yaakaare ñi ne déedéet bisimillahi rahmaani rahim aaya la waaye du aaya bi njëkk ci fatiha kese mooy aaya bi njëkk saar wu nekk rek saar woo dem bismillahi rahmaani rahim moo ko tàmbali moo ci jiitu bi maanaa boo dee lim fatiha ba ñaata laay la dañ cee war a waññaale bismillahi rahmaani rahim waaye booy lim beneen saar it laay ya dañ cee waññaale bismillahi rahmaani rahim kon ñooñu dañoo wax ne saari alxuraan saar wu ci nekk bismillahi rahmaani rahiim aaya la ca ñu nan ne déedéet bismillahi rahmaani rahiim du aaya ci wenn saar daa wàcc noonu di laayee boppam joo xam ne dafa ñëw pour wane pour wane fi saar yi digaloo mu fu aw saar jeexe rek bala ñoo tàmbalee yeneen bismillahi rahmaani rahiim day ñëw ñett wax yooyu nekk am na ci waaye ñun loolu du mooy li ñu gën a yitteel li ñu gën a yitteel mooy bisimillahi rahmaani rahim lu muy tekki xam naa ni tey bu fekkee danañ fi xaj dañuy jéem a yem rek ci baatu bismi bis bismillah lu muy tekki ak lu mu ëmb ak ku bismillah yan xeeti jaamu yàlla nga def ban ak la ak ak ma ngoog loolu ci la ñuy jéem a yem bu ko defee moom mooy lan wala lu mu ëmb li ñuy seetlu mooy bismillah mi ngi tàmbalee ci baa siin miim baa siin miim jooju baa gi baawul istiaana la ko nu xafiy tukke tudde baawul istiaana di xarafu jar ismi moom mooy majruur mi jaar ak majruur nag ci naxwu fu ñu ñëwee am na mutaallaq di jiitu joo xam ne wala mën naa topp gannaaw mën naa jiitu waaye mënta ñàkk mutaallaq maanaam loo xam na ci la ñu sukkandiku ci la ñu mën naa doon isim mën naa doon fial mën naa jiitu man naa mujj waaye li ci gën a bari nag dañ koy xadaf kenn du ko wane waaw buñ ko wanewul ñu ngi koy xame ñu koy xame ci siyaaqu wax bi waaye bu dee fii moom boo ne bu dee dangay ngay jàng alquran wala daal nga wax bismillah moo xam ci njàngum alquran la wala ci lu njàngum alquran saa boo nee bismillah jamono yi nga koy wax nakkut looy def matalan bi may yéeg ci mimbar bi wax naa bismillah foofu mutaalliq jaar ak majruur bi mooy maa ngi tàmbali yéeg gu may yéeg ci mimbar bi boole di ko tàmbalee ci tudd turu yàlla boole ko di sàkku ndimbal ci yàlla na aha jógee jàng fatiha yow jullit bi بدنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم دي متعلق من في حاجة معنى بعد بني في حاجة فدين دي كفينيو وايا ويانك وقت فك دا غي تعمل دي جانج فاتحة ولا القرآن ولا دا دا جانج دا كون لني في حاجة في مودي أبتدئ قراءتي معنى ما غي تعمل سمن جانج دي أحمد بودة مي بغي جانج لأخذ ريو إلا وخم بسم الله ما عند تام الله سمي وقت سورة الله صلى الله عليه بسم الله ما عند تام الله سمي وقت سورة الله بوا دافع سمي وقت أدري جانا القرآن فاتحة ولا سارم ولا دول بوانا بسم الله ليس جانس سيول ما عند تام الله سمي يعند بي في سورة الله ما عند تام الله سمي يعند بي في سورة الله أي بوينا فوق لولا ما جملة جواي أمن اللي نيوغل ما يباع الاستعانة baawul istiaana mooy bi googu li muy tekki mooy da ngay ndimbal ci kan ngay sàkku ndimbal ci Allah moo tax ba maanaa bi mooy maa ngi tàmbale sama njàng mii ci bismi ci bismi ci turu Allah boole ko di sàkku ndimbal ci yàlla mu dimbali ma ba njàng mi mat te mu nangu ko naka noonu tam foo waxee bismillah bu fekkee ne lii da lekk masalan boo nee bismillah ci njaal bi ñu lekk yi kon da wax ne maa ngi tàmbali sama lekk gi ci turu allah boole ko di sàkku ndimbal ci yàlla mu dimbali ma ba ñam ma lekk ci jàmm mu rees ci jàmm bu fekkee da ngay génn sa kër nga wax bismillah bismillah li muy fekk mooy maa ngi tàmbali sama génn gii may génn di doon soxla maa ngi koy tàmbali ci turu allah te itam maa ngi sàkku ndimbal ci yàlla ci lii ma tax a mu dimbali ma ci ba mu mat te barkeel loolu la bismillahi di firi ci jamono yi ngay lekk jamono yi ngay naan jamono yi ngay génn jamono yi ngay dugg lépp looy def rekk kon boo ne bismillah da nga cay sàkku da nga koo sa da nga ne maa ngi koy tàmbali ci turu yàlla te itam maa ngi ciy sàkku ndimbal ci yàlla aa walakin والجواب أننا نستعين بالله تعالى لا باسمه ولكن كلمة اسم الله ذكر وقد قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وأنت بفكر يومي واحدة قاعدة نقول أسلفتي اللغة العربية من الباقي باو ساكو دمبلا باو ساكو دمبل بسم الله كن نورنا ماجي ساكو دمبل تتو الله ndax baa gi moo baa ngi ci gi mooy baa istiaana ma saaku ndimbal gi ci ismullahi la sës ndax ismullah mooy turu yàlla ndax da ngay sàkku ndimbal ci turu yàlla wala da ngay sàkku ndimbal ci yàlla ndimbal nag dee su ko sàkku ci turu yàlla ndimbal ci yàlla lañ koy sàkku ndimbal dee fu ko sàkku ci kenn ci kudul ci yàlla subhanahu wa taala kon baa mi ngi mel ne eh, ñëw di sàkku ndimbal waaye ci li ci gannaaw ismu la ko sàkk te mooy allah wala boo kon ñu laaj kon ismu ji moom lu mu fi doon ismu ji lu mu fi doon mooy da ngaa bëgg a boole sàkku ndimbal waaye tam ak tudd turu yàlla ismullah mooy turu yàlla suñu borom yàlla moo wax ne walillahi al asmaau al xusna fadcuuhu biha yàlla moo moom tur yu rafet yi kon bu ngeen ko dee woo dee leen ko woowee tur yu rafet ci tur yooyu aha فنحن حين ندعو الله تعالى ندعو وحين نبتدئ عملا نبتدئه بذكر اسمه فيكون قولنا بسم الله متضمنا معنيين الاستعانة بالله تعالى وذلك بذات الاستعانة وذكر اسم من أسمائه وهو لفظ الجلال bu ko defee kon ñun bu ñuy wax bismillah kon bu fekkee baa gi sàkku ndimbal la ko tax a jóg ismu ji moom tudd turu yàllaa ko tax a jóg mu ngoog ismu ji ismullah tudd tur yàlla boo ko tax a kon da nga ne bismillah bismillah ñaari yëf la ëmb bu baax bismillah ñaari yëf la ëmb baaji mooy damay sàkku ndimbal ismullah mooy li may def maa ngi koy tàmbali boole koog di tudd tur yàlla kon da nga bismillah bismillah bi am na ñaari yëf yoo def kon bu njëkk bi mooy tudd nga tur yàlla ci jamono yi ngay tàmbali jëf ji waaye itam sàkk nga ndimbal ci yàlla ci jëf ji ngay def ndax mu dimbali leen. وهكذا يكون معنى قولي عند بداية عند عمل بسم الله أبتدئ عمل بسم الله مستعينا به تعالى. loolu moo tax nu wax ko waxaat ko pour mu gën a leer jëpp jëf jooy tàmbali boo nee bismillah sàkku def nga ñaari jaamu yàlla jëpp jëf jooy tàmbali boo nee bismillah na nga xam ne def nga ñaari jaamu yàlla. genn gi ñaar yëpp jaamu yàlla làmmiñ lañu waaye tam am na alaaka ak xol bi loolu tam nañ ci bàyyi xel bu baax jaamu yàlla yi da cee aju ci ak am yu aju ci làmmiñ am ci yu aju ci xol di nga ne bismillah ñaari jaamu yàlla yi nga def benn bi mooy da ngaa tudd turu yàlla bi ci des mooy da ngaa sàkku ndimbal ci yàlla ودليل من هذا الكلام أن كل قول أو فعل يمارسه الإنسان يجب أن يبتدئه مع ذكر الله تعالى ويطلب العون منه bu ko defee wax jooju liñ ci jële bu leer leer te loolu bëggoon naa ngeen jële ko ci te ko te jàpp ko te di ko jëfe ku ko ci daan na ci gën a fonk ko ci daawul jëfee na ko tàmbali gis ñi tey bu ñu ko bàyyeeti mooy jëpp jëf jële defati te tàmbali ba neel bismillah booy lekk waxal bismillah booy naan waxal bismillah booy ànd ak sa soxna sax waxal bismillah booy génn sa kër neel bismillah boo dugg ci yàkka yi neel bismillah lépp looy def neel bismillah am na ci ay xeeti jëf yoo xam ne du demee bismillah am na loo ci war a teg waaye loolu wax ko du fi xaj xëy na beneen jamono waaye bismillah yi moom mooy jiit bu ko defee da nga ne bismillah nag ci lépp looy def na nga xam ne li mu ëmb mooy ñaari jaamu yàlla yooyu benn bi mooy da ngaa tudd yàlla ci commencement jëf ji da ngaa tudd turu yàlla ba noppi itam ñaareel bi mooy da ngaa sàkku ci yàlla يقول الإمام الطبري في تفسيره الكبير قوله تعالى بسم الله قال أبو جعفر إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أجلب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله. ورحمة الله تعالى وبركاته قل من يوتي الإمام الطبري بعد ما يبغي في الفاتحة ذكر بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيك في بسم من من برب سبحانه وتعالى دا فا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرقو شي لي موي بوغا واخ موجينا صلى الله عليه وسلم دي بوغا ديف ولا مو ديكو بوغا bala mu ko def walla mu wax ko na jiital tudd turu wu bokk ci ay turam yu màgg yi moom yàlla déglu leen bu baax wax jooju suñu borom yàlla dafa jàngal sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa yar ko ci lépp lu muy bëgg a wax mbaa mu di ko bëgg a def lu mu tuut tuut mu bañ koo xeeb bala mu koo def wala mu wax ko na tàmbalee ci tudd turu yàlla wu rafet yi loolu da ko caay da caa yar jàngal ko ko ba noppi nag wax xeetam wi ne nañ ko ca roy kon boog yow ñu may déglu da ngaa war a roy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci loolu te loola mooy lépp looy bëgg a def waa nga di ko bëgg a wax fexeel ba bala nga wax waa bala nga koo def nga wax bismillah booy lekk waxal bismillah booy naan tàmbaleel bismillah booy jóg neel bismillah booy toog neel bismillah booy tëdd neel bismillah booy dugg neel bismillah booy génn neel bismillah booy suññi sa yére bismillah booy sol sa yére bismillah booy sol saw dàll bismillah booy suññi saw dàll bismillah booy dugg ci sa duus bismillah mu ngoog lépp looy def booy wax bu jëkk-jëkk mukk tàmbali wax tàmbalee bismillah yaa xam da nga wax te kaw biral ko wala da nga koo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 da ko war a wala mu di ko wax eh, eh, eh, imam Tabari na daa war a roy ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi loolu li ko yàlla jàngal te mu mu ko wax bismillah booy bind ab leetar wala ngay bind ab téere jëkkeel bismillah sam papa na ko yàlla yërëm te koy leer bi nga xam ne téere yu bees yi génn nañu bu gisee ab téere danaa lu mu tàmbalee am na téere yu bare bare bari ci téere yi léegi duñu tàmbalee bisimilahi rahmaani rahim boo xam ne ne téere bu tàmbalee bisimilah bu ne fekk tegal na fee téere bu tàmbalee bisimilah jurul ja jurul ci bàyyi xel bu baax imam Tabari boog lool la wax kon boog imam Tabari nee na loolu yàlla moo moo ko jàngal Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam yar ko ci ba nag bëgg xeetam wi itam topp ko ci loolu yàlla ci yàlla dimbali kon ku ko ci daan def na sant yàlla te na ko fonk te ko jéem saxal te it na ko jàngal ay soxnaam ak i doomam bu leen yem ci di ko def jàngal leen ko seen i soxna ak seen i doom yar leen ci seen i sëpteen yu ndaw ba ba ñu màggaale ko mu ngoog ko ci daawul def na ko xam te di ko def loolu mooy njëriñal waxtaan bi ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. بلن تفسير إما أبو ابن كثير ممنونة بو فكان دي دالي لك ولا دالي نان دالي دوغ ولا دالي جن دالي جانغ ولا دالي جاب ولا دالي جولي انا لو مانا ديف لاني لا سانت mooy nga tàmbalee ko ci bismillah su ko defee nga def ko mu nekk lu lay indil barke ca sa jëf ga mu ngoog bu ko defee itam yaa ngay sàkku barke di sàkku tayammun te itam yaa ngay ñaan yàlla mu dimbali la ci jëf joojee nu mu mate te yàlla nangul la ko xam nga kii julli man ngaa dégg buy tari fatiha man ngaa dégg mu tàmbalee ci alhamdulilah rabbil alamin boo xamul da defe ne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 waaye fekk na bismillah dina koo wax ndànk waaye wax na ko loolu moom la ibnu kasir wax ni kon boog bu dee da ngay julli tàmbaleel bismillah bu dee da ngay jàpp tàmbaleel bismillah lépp looy def rek tàmbalee ko bismillah bu ko defee yàlla dafa la ca barke te itam bismillah ji da nga koy wax ngir sàkku barke ci li ngay def ak ngir ñaan yàlla dimbali la ba jëf ji àgg te yàlla nangu ko التسمية تشتمل على هاتين العبادتين فالأولى ذكر الله تعالى عند ابتداء كل فعل أو قول والإنسان يحتاج إلى الإكثار من ذكر الله لمنافع كثيرة يجتنيها من ذلك kon wax ci kaw dina wax agon lépp yow mbokkum julit yi na nga ci jële ni lépp looy def wala nga wax ko bismillah te bismillah jooju itam na la leer ne ëmb na ñaari jaamu yàlla comme ni ma ko waxe jaamu yàlla e, tudd turu yàlla ci njëlbéen ji sunna la ak jaamu yàlla geneen te ñaan yàlla mu dimbali la ba jëf gi àgg te bu dee ak jaamu yàlla itam yàlla nangul la ko la ko waral rek moo di nit ki dafa soxla di tudd yàlla lu bari xam nga suñu borom yàlla nee na yaa ayyuha alladina amanu dkurullaha dikran kasira yéen jullit ñi na ngeen di tudd yàlla ci gu bare bare kon loo xam leen ne nit dafa soxla di tudd yàlla lu bare bare bare bare ah المنافع كثيرة يجتنيها من ذلك hmm. ومن هذه المنافع الحصول على بركة هذه الأسماء الحسنى hmm. ومنها أن تذكر ذات الله تعالى يلازم قلبه أو يكاد hmm. لأن الأفعال والأقوال كثيرة فإذا كان العبد يأتي بالتسمية في بداية كل فعل وقول وقول منها مع كثرتها فيتذكر قلبه ذاته العلية فإن تذكر ذاته تعالى يكاد يلازم قلبه وهذا ييسر له مراقبة الله تعالى ويقربه إلى تقواه لكن بشرط حضور القلب عند التسليم هنا بسم الله xam tudd yàlla jullit bi da koo soxla def lu bari ndax ay njëriñ yu bare bare bari yu ci tudd yàlla xamal ne bisimilah yu bari yooyu yàlla sant la ko pour nga jaamu ko keese te sañ na ko waaye dala koo sant pour nga jaamu ko te fekkit sa njëriñ a ngi ci tudd yàlla gu bari sa làmmiñ di ko tudd lu bare bari daa am njëriñ yu bare bare bari si bàyyi ko njëriñ yooyu mooy lan mooy koo xam ne kii lu muy def day tàmbalee bismillah li ci gën a bari lu mu def barke dafay am loolu jàpp leen ko koo xam ne si lu muy def da koy tàmbalee bismillah gën a bari lu mu def barke dina bi ñuy door noppi ci jumaa ji nga xam ne kenn dalal gu ko woon dañ koo tëj ay gan dañ fee ñëw bëgg seet ndax dañoo dégg na jumaa ji daal daa yaatu loolu ci amul senu ñu jóge fu sar nag doon doon taxuñu na jóg waaye dañu dañoo ziyaar si woon rek sama papa te dañoo bëggoon a xoolaale jumaa ji sama papa boole leen rek bàyyi dayi jéen yal leen yàlla doon leen ñun ñëpp te leen te jéggal leen bàyyi dayi ànd gan yi andi ci ji dogal jeen jeen jeen jeema ci tijji mënta ci jikko mu jeen jéem mënta ci jikko gan yi jël jéem jéem mun na tijji fexe ba tijji ko ñu dogu ci na caad bi mom du caabam ñu dellu ñu ànd dellu na ne sëñ bi da nga joom caabi ji muy wax du caabi jàkka ji mu leen wa lu tax ñu ne ko dañoo jéem jéem a tijji mënoo mënta tijji ko mu ne leen ndax ba ngeen dugalee wax ngeen bismillah ñu ne ko ah mu ne leen looloo ko tee tijji dellu leen dañu del see dugal wax bismillah benn yoon gis mu ci jëpp loolu ba léegi xaw lan la xaw ma lan la waaye lii moom am na bismillah boo ko dee wax ci say jëf yëpp li ci gën bari loo def day ànd ak barke loolu mooy li nga jëkk amee ci bismillah bi mooy bismillah bu dee looy def wax bismillah tudd yàlla bismillah mooy maa ngi tàmbali li may def ci euh, baatu allah boole di sàkku ci moom ndimbal waaw baatu allah moom kon ñaata yoon nga koy tudd ci bis bi bu fekkee saa boo tuddee yàlla sa xol dem ci moom kon kay yow da nga doon jëmm joo xam ne yàlla dina nekk sa xol lu bare bare bari ndaxte li ngay def ci bis bi ak di ko wax jëf yi ak wax yi ci bis bi day bari lool ni mu baree nag bu dee li muy bari bari benn bu ci nekk dana ànd ak bismillah kon yow baatu allah du du dëj ci sa làmmiñ pour yàlla du gëj ci sa làmmiñ te bu gëjul ci sa làmmiñ xanaa wër ta gëj ci sa xol wër ta gëj ci sa xol daanaka rek ak yàlla day dëkk ci xol bi yàlla day dëkk ci xol bi ndax loo def tudd koo xam ne kii loo def tudd aw turam jëm fàttali ko jëmmam day dëkk sa xol te xam ngeen ne loolu am na njëriñ yu bari dana la dana la dimbali ba nga gën a mën a xel yàlla ci yu bari looy def nga fexe ba defe ko na mu ko bëgge bu dee lu mu bañ nga bañ koo def bu dee lu mu santaane nga góorgóorlu ci def ko kon dana la dimbali bokk ci muraqaba dana la dimbali itam ci taqwa ndaxte dana tax nga fàttaliku ni moom boo defee nangam dana ko euh, merlo te ragal nga ko kon bokk duma def nangam su ma bàyyee nangam day dana ko merlo te ragal naa ko kon bokk duma bàyyi nangam kon bokk bisimilah yu bari yooyu bu fekkee yaa ngi koy defe na mu waree dana la dimbali ci nga ragal yàlla góorgóorlu ci ay ndigalam te bàyyi ay tere loolu lépp bokk na ci njëriñ bismillah hmm. waaye nag loolu lépp day fekk boo dee bismillah na ko lam miñ wi wax xol bi itam na dem ci yàlla waaye wattul la daloon waaye Moussa ca dal ja dal la waaye Moussa ji mu leen fi nettali woon te mu tàllal loxo yi di ñaan rek ñaan ñaan mu tee nangu ndekete li tax ñaan gi nanguwul mooy lammiñ wi day wax loo xam ne xol bi nekku ci loola bu mu leen dal yéen ci jamono ngeen wax bismillah saa boo ne bismillah na lammiñ wi tudd yàlla waaye na ànd ak xol bi itam ne allah mooy yàlla mhm. ومن هذه المنافع صرف الشيطان وإبعاده عنه فكثير من الناس لا يعلمون أنهم حين يأكلون بدون تسمية فإن الشيطان يجلس في الإناء ويأكل معهم وكذلك الشراب ولعل الأدهى والأمر من كل ذلك هو عند المضاجعة يشاركك الشيطان زوجتك وأنت لا تدري bokk na ci njëriñ yi bismillah kon baat bi kon yàlla lu bari dafa am ay njëriñ yu bari waaye bokk na ci njëriñ yi bismillah yu bokkut ak yi ma waxoon léegi te xam naa ne du ma mën a tudd njëriñ yi yëpp damay damay tudd benn bi rek na ci njëriñ yi tudd yàlla bismillah dala dalay ak seytaan dalay soreele ak seytaan mu ngoog jamono yi seytaan nekk ci sa kaw sax bo tudde yàlla mu bala am da waa joo xam ne ma sa nekk ci wati yantu bi sallallahu alayhi wasallam di xuloo keneen xamna nak nag da meram meram meram meram nak bakkaram di fum waaw di xul rek di wax rek yantu bi da xamna ben baat bo xam bu ko waxon rek mer mi den bo waxon a'udhu billahi minash shaitanir arrajim baatu allah bi ci du koy tudd yàlla mu ngoo kon bok bismillah balay sorele ak seytaan rawatina nag jamono yi ngay def dara loo xam ne seytaane da koo bëgg a ànd ak yow ñu bari ci nit ñi xamuñu ne buñ sukkee ci seen ndab di lekk seytaane day sukk bokk ak ñoom mbokk yi yi ndax xam ngeen ne dara la ci yéen xam ne tey bi ñuy ndekki bokk ak ñoom ndekki la ana kan ci yéen moo bëgg seytaane ñëw bokk ak moom kafe kasam gamuy naan mbaa cere cerem gamuy ndekkee bari na ci nun ñoo xam ne ba ñuy njëkki seytaane la ñëw bokk ak ñoom seen njëkki la seeguñ ci dara ngeen ñëwuñ bismillah seytaane booy lekk te newoo bismillah mu ñëw bokk yow naan mu ñëw bokk naan ga boo duggee sa kër te newoo bismillah mu ànd ak yow dugg mu ngoog boo toogee sa lal te newoo bismillah mu toog ci kaw lal bi xam ngeen lu gën a métti loolu lépp mooy boo àndeeg sa soxna ngeen di ànd yàq soxna te nawa bismillah seytaan a ñëw di ànd ak moom li ngay ànd ak moom waa mbokk jullit yi ci ànd ak soxnaam te te waxul bismillah te bismillah rek la war a wax dafa wax dafa am na ñaan ko ca war a ñaan yooyu dinañ leen ci bari mën nañ ko jaat bindaat indiwaat insha allah waaye am na ñaan goo xam ne moom nga war a ñaan booy lekk wala booy naan wala booy ànd ak soxna booy nag ñaan nga dee ñaan bismillah moo ca jiitu bismillah jooju boo ko waxul ba tax nga ànd sa soxna seytaane ñëw ànd ak ànd moom subhanallah yaa yaa seytaane bokk soxna si ku bëgg loolu ci yéen ndekete yo ndekete yo bëggee ànd sa soxna ndekete geneen góor a ngi ñëw ànd ko ah, bokk koog yow góor goo xam ne ji moom seytaane la su bokkul waaw waaye man li may laaj mooy jooja doom bu juddoo lu muy doon doom ji juddu te fekk ba ñuy ak yaayam ñaara ci àndoon nit ak seytaane moo jojo doon lu muy doon xam naa ne xawma lu muy doon de waaye daal ku naqaree tàqale ak seytaane lay doon yàlla na musal moo tax nan fonk bismillah ci jamono yépp ci lépp lu muy xam ne bismillah buñ ko waxee ëmb na ñaari bu njëkk bi mooy nangi tambale li may def ci turu allah te itam koy ñaan mu dimbali ma mom yàlla ba li may def li ma ci aajo ci ndimbal ma defal ma ko مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء في صحابي تجي وقت جابر رضي الله عنه نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعمة بكنتين تين jógee ci fam doon liggéeyam mbaa ci penc ma mbaa fenn daal ci jàkk ja mbaa fenn dugg wax bismillah ñu indi añ bi wala reer bi mu ne bismillah seytaan di naan oh dëg leen ñu dem fii fus mën a yendu amu fi wala fus mën a fanaan seytaan ab añ amu fi ab reer amu fi waaw seytaan day xam ne fii moom du place am mu daal jóg dem dafa mën a toog seytaan bu fa toogee du lekk du naan mu dem nee na nag bu fekkee da ngay dugg néewo néewo bismillah wala da ngay añ ñeewoo bismillah wala da ngay reer nee boo duggee seytaan day dugg boo ñëwul bismillah mën na waaw kay fii day fas mën a yendu am na fi ak fas mën a fanaan boo tàmbalee di reer mu ne fii ab reer am na fi da ko de kon ndekk ka ku dugg ci yéen ci këram rek am na baat bu seytaane wax ba mu ko yëgee ak ba mu ko yëgul ba mu ko déggee ak ba mu ko déggul seytaane ngu noonu sama borom yàlla nee na إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يعني سيطان أك قبيلني يعني يوم دني جس تدون دون لن جس يوم دني جس تدون لن جس دون دين تدون لن دين يعني بود جس تتنيو بسم الله فسوحنا تايد لسبرا نيو بسم الله سيطان أوه قاوكي في موم فسمنا فنان أمنتي سيطان أبرير أمنتي داري فنا داري بوكي يوسف غير فنا ليو جبلل boo ànd ak sa koo moom booy dugg nag boo nee bismillah si bi ngay dugg ñu taaj reer bi nga ne bismillah seytaane oh ma jóg fii fu mën a fanaan amu fi te fii ab reer tam amu fi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo jàngal loolu kon boog na ngeen fonk yéen ñëpp bismillah te xam ne loolu lay حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من حذيفة موقع نسل التسحابي إمام مسلم أدنه ma ahmad ibnu Hanbal indi na ko Xudayfa nee na dañ daan def ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ indee ñam teg ko yonent bi dafa amoon ay ay ay ndab yu mag ñu daan def ñam yu bari bu ko defee yonent bi day sukk saxaaba yi day sukk ñun ñëpp di bokk ci ndab li nee na waaye bi ma sa indi ndab loolu ñun ñëpp nu bokk sukk nee na balaa kenn tàmbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo daa jëkk a dugal loxoom ci ndab li ñun ñëpp lu door a dugal suñu loxo tàmbali nee na am na benn bis nag ñu taaj ndab li nit ñi ñëw yeneen bi tàmbaleegul am na gone gu jigéen gu ndaw gu jóge fee rek mel na ku ñuy dàq te tofat tofat tofat daal di ñëw kenn tàmbaleegul yonent bi dugalagul loxoom sallallahu alayhi wa sallam mu gaaw bëgg dugal loxo bi yonent na fëkk loxoom ne ko cëfëb tee am geneen gan gu ñëw koo xam ne dëkku fa booba tam ak la mu daw mel ne ku ñu dàq ne tëfar tëfar tëfar agsi mel ne ku xiif nekk mu agsi daal ne yoob loxo yi bëgg dugal yonent bi tëfit ak ne tëfit téye loxo ba yonent bi téye téye ñaari loxo yi daal di joxe côté ab dës gëri saxaaba yi gis ngeen xale bu jigéen bu ndaw bii seytaane ko yebaloon bëggoon mu jëkk a dugal loxoom ci ndab li te du wax bismillah ndax bu dugalee loxoom bu jëkk a loxoom su ndagg tëw ko bismillah seytaane moom mu bokk ak ñam ñun ñam wi day daal di doon lu yomb ci moom moo tax mu yebal xale bu jigéen bu ndaw bi bi ko yebalee ma téye loxoom bu fekkee gan goo xam ne bii moom xam gan la xamagul bismillah mu mu yebal ko mu daw ñëw moom itam bu ñëwee mu daal di koy sant mu dugal loxoom moom it mu bëgg dugal loxoom tëw ko bismillah ma téye seen ñaari loxo ñaan su daa nit ñëpp sallallahu alayhi wa sallam ci bu tedd ba na nga nëpp ci loxoom bu tedd ba ñaari loxo yi loxo yi gën a bu jigéen ji ak loxoy euh, euh, euh, gan bi mu am lu mu wax mu ne maa ngi diñ ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne sama loxo bii maa ngi ci ñetti loxo ñaari ngeen ji waaye ñetti loxo ci ne loxol gën a bu jigéen ji ak loxol gan ji ak loxol seytaan gis ngeen seytaane ni mu xajee daa bëgg a a lekk ci ñam yi tax mu yebal gone gu jigéen bi ne ko dawal tàmbali lekk su xel mi la ko koy wax mu mel ne xel mi li ci nekk moo ko wax xam nga seytaane li ko tax a bon mooy moom bu lay sant dara du la ne jàkk ne la mën a seytaane dama def nangam day fekk xel loola mu nekk ci xalaat ci yow nga defee ne sab xalaat yaa ko xalaat te nekkul sab xalaat xale bu ba dafa defa woon ne moom moo xalaatal boppam bëgg a dem tàmbali lekk te moom xamul bismillah te fekk seytaane ko te def mu ngoog waaye ba yonent bi téye loxoom gan ga ñëw bi téye loxoom yonent bi ñëpp seen ñaari loxo dafa ne giñ naa ci yàlla ni seen ñetti loxo ñaari loxo ngeen gis waaye ñetti loxo laa téye ñaari loxo ngeen gis waaye ñetti loxo moo ne fii loxol seytaane ngi fi ak loxol gën ak loxol kon boog mbokk jullit yi seytaane noonu ñi boo xamee ne bi noo ngi lekk te àndut ak nun te te te te waxuñu bismillah day bokk nun lekk bi kon boog bismillah mu ngi noonu am solo lool jaadu woon na xutba bi gën fee mën a yaatu ba ma indi leen ay barab yu bari ci barab yi nga xam ne ab jullit war na saa wax bismillah waaye su ma ko bëggee tënk dama naan rek lépp lu jullit di wax mbaa mu di ko def mbaa mu di ko bind na ko tàmbalee bismillah te xam ne bismillah ñaari yëf la ëmb ñaari yëf lay tekki ñaari jaamu yàlla moo ci ne bu jëkk bi mooy li ngay def da nga koo tàmbalee ci turu allah ci zikrullah te zikrullah daa bari ay njëriñ lool moo tax li gën mooy boo naan bismillah na sa xel na sa làmmiñ wax bismillah waaye na sa xol dem ci turu allah gënoon jaamu yàlla gi mooy baaji day wane ne yow mii da ngay sàkku ndimbal ci yàlla na la yàlla dimbali ba li nga tàmbali mu àgg loolu la bismillah di tekki loolu yaakaar naa mat ne sëkk ab dës ku xamul woon na ko xam koo taxawul woon na taxaw moom te xam ne léemaay la ku taxoo bismillah seytaane dana la sori ku taxoo bismillah yàlla dina dëkk sab xol ku yàlla dëkk sab xol sam xel dina dal dana féex dana bari ay tiyaaba dana sori ay bakkaar seytaane dana la sori lii aslaf la lu bokk ci ngër yi zikrullah aslaf la lu bokk ci ngër yi bismillah lii mooy maanaam bismillahi di ngeen di tàmbalee jàng bu ngeen day jàng fatiha di wax bismillahi arrahmani rahim yal na yàlla may dégg ak topp yal na yàlla may suñuy jëf lépp ñu teg ko ci sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu kenn bismillah barke sëñ diw nag bu kenn bismillah barke sëñ diw loolu loolu loolu loolu loolu daganul loolu shirk la loolu bokkaale la bismillah kenn du ko boole dara booy rendi boo waxul bismillah ëpp naa lekk waaye bul ne mukk bismillah barka sëñ Diouf booy lekk waxal bismillah booy rendi waxal bismillah booy jàpp waxal bismillah booy julli waxal bismillah waaye bul ko tudd laa kon mukk yàlla buur la du du moroom boroom la du moroom kenn du ko tudd di ko tudd ndox kenn lu dul jamono yu mu ko santaane te kenn la santaane ننم محمد صلى الله عليه وسلم ليال سنتان نتود أو تربو يتكتر محمد سأي برب يمرن له سلن كوار يملا كبرب يويا بوي ند بوي أشهد أن لا إله إلا الله دنا أبو أشهد أن محمد رسول الله بوي لقام نقنونا بوي سايا نقنونا bu fekkee ne dii nag beneen barab la boo xam ne dii yàlla daaw sentaane ko ba wax bismillah te tudd fu ko fa tudd amma ku dul Muhammad lu mu mag mag sab xol loo ko fonk fonk ne wali yu gën a mag ci wali yi ne sëriñ bi gën a rëy ci sëriñ si bul tudd aw turam mukk ci jamono yooyu wax bismillah kon su boobaa sirk la te la ngay def tam bàkkaar doom nga ci jële wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa